lan moo ko sabab tey. waaw ndaje bi lu lu yomb la dañu daje woon rek pour euh, ci cadre rentrée scolaire bi euh, renforcer li nga xam ne mooy l'équipement scolaire avec des kits scolaires pour élèves yi ñun nag on a juste été là vraiment pour le protocole mais waa koñ bi les les femmes les jeunes ñoo bëggoon mu demee noonu ñoo ko organiser noonu. nous donne une grande satisfaction et le directeur d'école nous a aussi beaucoup facilité les choses. Mais comme à l'accoutumée, on essaie de faire un geste symbolique autant que faire se peut. Bah, 500, il y a 500 qui sont dans l'école C'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais c'est déjà un geste, quoi, le, le, le mot objectif. Voilà. bon, on agit déjà sur d'autres aspects, hein, sur des questions de santé. On a déjà fait plein d'activités ici, notamment, euh, je crois que c'était un dépistage qu'on a fait. Donc, on s'appelle ça une, euh, un truc gratuit, une, euh, une consultation gratuite. On travaille également avec les Badjelougor et la couverture maladie universelle pour essayer d'accompagner l'enrôlement des étudiants, enfin des élèves. Et également, on essaie de travailler avec la jeunesse. Vous savez, ça fait longtemps qu'on travaille dans le quartier. Il y a beaucoup d'initiatives sociales qui ont été prises à plusieurs reprises, euh, aussi bien dans les cités que dans Yoff d'ailleurs, village. Mais bon, ça c'est l'acte normal d'un homme politique. C'est pas ça qui est le plus important. Ça c'est au quotidien ce qui doit être fait. Euh, en vérité, si je vois, euh, su ma gisee su ma gisee presse bi. ci ci kàddu googu moom euh, ci euh, def action solidarité yooyu lu normal la donc du jar sax ñu di ci sori waaye li jar a wax peut-être lorsque euh, la presse est là mooy li nga xam ne mooy l'intérêt général beaucoup plus large mais dëkk fa gox ba nga dëkk seq ak nit ñi jàmm ñoom ñu seq ak yow jàmm sa bët sa xonkee nga yàqaat leen c'est normal aussi yow la nga mën nga di ko def ca koñ ba loolu la rek te mu doon lu normal li ngay def am na ñeneen ñu koy def lu gën a bëri li tax mu fës mooy peut-être li nga doon une casquette politique mais sinon c'est pas forcément extraordinaire mais li am solo ci daje bi mooy vraiment envoyer un message national à tous nos camarades pour que ñu am plus que jamais takk seen digg taxawaat wóolu les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax li leen jiital mooy réew mi li leen jiital mooy le projet politique qu'il porte pour def ba nga xam ne Sénégal dina doon dëkkub nataange ku la dig añ su la nee dinaa la invité reer nga mun koo gëm ci diggante 2012 ak léegi li fi coalition Benno Bokk Yaakaar def ci bépp gox ak gox goxaanu Sénégal du lu ñuy weddi li ñuy làmb la daj ko expliquer à la jeunesse que le Sénégal a fait un parcours et des ruptures depuis l'arrivée de la coalition Benno Bokk Yaakaar si ñi ñi jiite réew mi ci ni nga xam ne moom la ñu rationaliser les ressources de l'État ci ni nga xam ne noonu lañ prioriser les actions de l'État ku nekk fa nga dëkk ci Sénégal mun nga gis ci sa quotidien la fa la majorité Benno Bokk Yaakaar def ci accès à l'eau potable sur des infrastructures sur des niveaux d'équipement de sorte que euh, loolu rek mooy guider le choix de nos autorités pour que ñu am les listes les plus compétitives et les plus performantes au niveau local su ko defee ñi ñu tànn ak ñi ñu tànnul yëpp takk seen digg jublu ci liggéey bi pour que li nga xam ne moom lañ yaakaar ne mooy issue bi de façon irréversible mooy le 23 janvier muy une victoire large et massive dans l'essentiel des collectivités locales ci ak territoriales ci biir réew mi loolu mooy li nga xam ne doon na baax ñu ñu sànni ko ci